asalaamaaleykum su may mbokki jullit maa ngi leen maa kool di leen di leen nuyu di leen sant di sant yàlla suñ borom bi di sant suma yaay suma waajur ak di sant suma nijaay Ibrahima Ba waaw parce que ama benn waajur bu ko ëppa dama bugg a wax nag tuuti ci la ci in his honor for the day nijaay amut morom suma nijaay bi ma nekkee halal moom moo tax man jooyuma papa suma nijaay daf ma bugal bopam. ko wax inshallah allah suma diggante nijaay nu mel waaw té lolu ci lolu maa ko sant di ko gërëm man ké na nijaay suma nijaay defon nañu bari waye man suma boss la mëna wax dal na ko fi yalla yagal liñ ko onaté nak mom is is past due man suma nijaay dama ko honor every day every day man ko honor he has my best vote my highest honor every single day suma eewoo te ci loolu loolu liggéeyam la suma nijaay nekku ne dama ko defal dara lu ma buggee daf ma buggal boppam te ni ma buggee man ni ma ko buggee moo ko raw am boor bu set bu maa dut eewu te xalaatuma suma nijaay yal na ko yàlla defal jàmm yal na ko yàlla aar yal na yàlla dundal njaboot gi barkeel ginnaaw barkeel njaboot gi waaw ma nijaay jàngal na ma lu bari jàngal na ma patience jàngal na ma ni ñoo ni nga deal with other people jàngal na ma yërmande nit waaw loolu yëpp ci moom laa ko jàngee su ma njaboot ni ma leen a toppatooyee sax su ma tànki nijaay laay toppat parce que moom laa gis te ni ma gisee mu toppatoo njabootam nee na ma yal na ma yal na ko yàlla dimbale yal na ko yàlla may wér yal na ko fi yàlla yagal ci barke salatul fatiha man nag suma olof yi dañ xala manke tuti way ken balal ma tuti rek ma read li in english then bala ma bala ma close their uncle Ibrahim ba I thank you, dear Uncle, through the years. You were there for me, a strong man that I could always lean and depend on, a strong man who, loved, who showed me love and direction. In many ways, you were a father to me. In many ways, you were a friend, and the very best friend, and the only friend that I have. Yes, uncle, you have been my many you have been many wonderful things to me, and you have done wonderful things for me. But above all, you always made me feel loved and protected. And for this, Uncle Ibrahima, Yoruba, I love you and I thank you very much. Uh, Ngan السلام علیکم